balle est dans notre camp ñoo war a jàppal suñu doom ku ne loo nekkoon ku ne loo gëmoon ku ne loo jàppoon gis naa ne war nañ ko woon a bàyyi ñu jàppale ko ba lii passé ñu door a xool la neen ñuy def man noonu laa ko gisee. bale bi jox la ko motul 30 mètres ngay jël benn parpantu bale di ko damm loolu mooy wone mbooloo loolu mooy wone unité di leen ñaaxaat di leen ñaanaat yéen jigéen ñi yéen laa ko sas élection yi gañeel leen ma ko sasuma góor yi sasuma ko mag ñi yéen jigéen yéen lañ ko sas enveloppe bi ma jox macha allah duun na lool jàpp jàppalee ma ko dama koy seede ndax def koo def lee ma ko ndax yàlla dañoo boole ñu ànd bokk ci madame la présidente Aminata Tall mu ne foofu ma jàppale la ndax sama rakk nga sama lépp nga yëkkati teraangaam jox ma ma ko koy sante du ko seedeel monsieur le ministre di la seedeel ne DG mii jàppale na ma jox na ma xaalis bu bëree bëree bëri jàppale ma ko ci campagne bi waaye naka noonu noonu le ministre Dame Diop mii tamit def moom it macha allah jàppale ma lool am na loo xam ne sax du waxi fii am na loo xam ne du waxi fii moom xam na man xam naa waaye dama koy sant bay ut ku ma ko santale ndax jàppale na ma taxawu na ma wóolu na ma am na confiance ci man ndax fu ma rek ay kilifa ba ci sëñ Mbàkke mi mooma mujjee seedeel ay kàddu yu rafet yu daan jóg wax ci man keroog kër euh, siège fa jaani kon ki lay jàppale di la teral di wax ci yow lu baax teg la ci yoon pour nga am lu baax bu yépp taxawee danga koy wax man dama sant ndax dama am wéeruwaay macha allah noonu la ma madame la présidente Aminata Tall booleeg DG Moustapha Gueye te local ya wooba ba wuyu ko mu ne ma jàppaleel ma DG Moustapha Gueye ma sol sama daal dem ba këram tàllal ko loxo mu tàllal ma loxo booba ak bàyyiwuma benn yoon moom ma téye di ma teral di ma jàppale ngir dem la président waaye di ma jàppale ngir président de la république Macky Sall barki dem moo Ndiaye yéen ñi toog teraanga ju ma leen yónnee tabaski bi rek DG Moustapha Guèye mii moo ma ko yónnee. sama may wax. ma ñaan suñu sëñ bi Mbàkke mu defal ma tuuti ñaan ci koo xam ne ku sori woon ci man la ci koo xam ne ku baax ci sama bés ci koo xam ne ku baax ci sama liggéey taxawuma yàgg ak man jàppale ma ñuy ànd ci politik ba mu tudde ma doom ju am fukki at ak juróom yàlla def mu nekk ci samay service politique ba yàlla moom ko ci loolu muy Ndeye Diop mu Golete may ñaan sama suñu baay bi mu defal ma ci ñaan ndax tey bi ma xëyee nekkuma parce que su ma musaana am bés yu mel nii damay laa veille laay dégganteeg moom di xëy di dégganteeg moom ñuy nas di notti su ma ne leen élection yi kii mooy seere bi toog nañ sama néeg ñu programme man ak moom loo xam ne yàlla muy dogal moo ko dogalul waaye yéene ji ma ngi ko woon sëñ bi la fa ñaan lu kilifa gi wax rek loolu laa wax bu Macky Sall ne waaw ma ne waaw bu Aminata Tall Moussa ne nii la ma ne ko waaw la bam ñu ne Sayer Diop ñu ne ko gong wante moom mii tamit mu nooy nepp ubbi dënnam laa biir lool département Diourbel bi yëpp am ndam waaye yal na commune Ndoulo jiitu ci ndam la te kenn bañ koo wute maa leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal.